Euh, dafa am des intellectuels qui ont signé une tribune tuddee ko le le le le le désenchantement démocratique ñu ne le Sénégal sous le régime de de Macky Sall dafa salfaañe droit de l'homme euh, sans doute que dañuy décrire euh, les situations la dissolution du parti PASTEF l'emprisonnement de Ousmane Sonko l'emprisonnement des des des leaders euh, et des nombreux militants et activistes Euh, de de de de Pastef euh, yow situation boobu lan la la lan la la inspiré. mais man mais man nañu indi jàmm ci réew mi. c'est-à-dire. ma xam may tàmbali sama émission dama la wax ci weeru safar lañ nekk nañ ñaan yàlla yàlla indi jàmm ci réew mi ñi juum ak ñi nga xam ne dañoo tooñ ak ñi ñu tooñ nañ defar seen xol yi ñu defaraat réew mi. xam nga xam nga xam nga Maïmouna l'analyste politique parce que moi je suis diplômé en sciences politiques l'analyste politique que je suis considère qu'aujourd'hui nous avons deux camps qui sont très figés waxuma la deux waxuma la le Sénégalais mais deux camps politiques qui sont très figés il faut qu'on trouve un moyen pour que l'exercice démocratique se fasse il faut que ñu nangu ni débat du saaga du xeex il faut que ñu xam ni les institutions de la République sont sacrées il faut que ñu xam ni que la justice d'un homme politique est naturellement une justice décriée partout dans le monde bu ñu nangoo nangoo loolu yëpp ñu indi jàmm ci réew mi ñu waxtaanee jàmm man loolu laa gëm loolu kese laa gëm je ne me prononcerai pas sur certains sujets xam nga lu tax. man du ma du ma kuy jéem a valoriser benn affaire pour am ci benn bénéfice quel qu'il soit. la justice elle est rendue mais xam nga ni tey. mais est-ce qu'elle est rendue. non est-ce que la justice rendue. Euh, dans l'affaire Ousmane Sonko est-ce qu'elle est méritée. mais qu'est-ce que le président Trump dit xam nga le président Trump est poursuivi qu'est-ce qu'il dit wax ma rek. au moins la justice avec il dit la même chose que nos hommes politiques. oui mais n'importe lequel ah. c'est-à-dire que man Mame Boye Diao sax xëy na suba bu mu amoon problème ma la justice est est corrompue ma ci kàddu gi c'est pas des corrompus parce que j'ai grandi avec eux on est tous sortis de la même école tu comprends l'homme politique utilise les armes politiques Sarkozy temps yee même discours la tenir. man dama lay laaj de manière spécifique li ma gëm li ma gëm. d'après tout ce qui s'est passé ndax Ousmane Sonko et Pastef. mérite le sort qui leur est réservé. J'ai dit, j'ai dit encore une fois, qu'aujourd'hui, il y a un camp qui fait face à un autre. Malheureusement, le, résultat, le vrai, mooy nous ne sommes plus dans l'adversité nous sommes dans l'animosité quels sont ceux qui se battent suñu ay doomu réew ñooy jógee ñiy bokk suñu camp ñee bokk beneen camp ñuy reyante léeg-léeg c'est-à-dire quand l'image de ce jeune Sénégalais qui prend une pierre et qui la jette sur la tête d'un policier ne choque pas moi ça me choque. mais man yaa ngi tourner rek. man dama la ne man dama ne. Maïmouna. dama il faut est-ce que l'épilogue de cette affaire il faut est-ce qu'elle est justifiée est-ce qu'elle est méritée ou pas. Maïmouna les délits et les crimes pourquoi vous voulez les classer nous sortons d'un dialogue national non voilà. Mm-hmm. on a permis à des personnes qui avaient été condamnées à devoir aller concourir dans les suffrages des Sénégalais wala loolu moo fi am. waaw sélectif. waa déedéet waa mais lool laa wax non sélectif ou pas. Mm-hmm. mais je dialogue national dafa dafa am ay doomu Sénégal yi ñu wax ni man waxuma leen je parle pas du président Khalifa Sall je parle pas Karim Wade je dis dañoo wax ni dañoo luubal alalu askan bi du dëgg ñu dem dialogue national ñu ne leen léegi dinañ leen may ñu bokk ci ay élections. waa léegi nañu waxtaan nañu waxtaan nañu waxante dëgg xam ni réew mi c'est sacré nit ak doole goo mënti am mënoo jàkkaarloog suñu réew ndax suñu réew moo la gën le Sénégal est éternel nos destins sont éphémères du dëgg ñu waxtaanee ko bu dee mën nañ ci defar amaat jàmm nañ ko def.